Mauritanie sama waay suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay làmp abat-jour yu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement appartement meublé yi yow sa appartement da ko defar ba mu baax am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu. salaamaaleykum Dabaye nuyu nañ dañoo ñëwoon seet la ndax li nga def ni c'est pas da nekk jigéen jël sa sa jigéen yi boole leen ñu ñëw jàppale la muy jaay macha allah ndax li yomb na ci jigéen. Euh, sant yàlla bu baax yomb na yombul ndax bu fekkee dañoo jël jàppee sa bopp. jigéen yaakaar naa ne jamono biñ toll jigéen ñaa ngi fépp jigéen ñaa ngi ci bureau yi jigéen ñaa ngi ci kër yi jigéen ñaa ngi ci yi jigéen ñaa ngi kon donc bu fekkee ñun ay ndaw lañu liggéey rek ndax ku liggéeyul doo traite te dañoo bëgg a wane exemple suñu mor rakk yi di nañu liggéey bàyyi caaxaan bañ a nekk ci ay futilité amul sens liggéey moo wóor du dëgg ku liggéey fayeeku mais lii nii dafa yombul da bàyyi jigéen yombul rawatina da nga boole lu mel ni boole leen ak àndul jigéen léegi tey ji waaw yombul yomb na su fekkee da nekk njiit doon jigéen jiite sans jigéen da ngaa nangu tëddee ñaaxaane ay ku ñëw yéeg sa kaw yow yaa jël lépp nga bokk boo ko defee rek mu yomb mais lii tey ji nga jël bés bi macha allah dara jël ko soxna Bally ban yëg-yëg nga am ci lii waaw dafa nekk référence nekk jigéen ju mën góor nekk à part yoonu murit bi mu doon nekk référence ci jigéen ñëpp ñu ngi yor ay fondation di ko doxal ay tii suñu sañoon mel ni moom di doxal ci côté boobu ci social bi ndax kat sinap bu ndaw la am mais ñoo ngi def ci social bi li ñu mën kon donc buñ fekkee ñun dañoo bëgg nit ku baax yaakaar naa ne duñ ko jéggi du dëkk loolu kese la. lan mooy force Dabaye macha allah saa su nekk macha allah muy gën a sama force yëpp liggéey la sama lépp liggéey la su ma xalaatee ne lii war naa ko man a def def nii defee nii am ci lii def nii damay def sama force yëpp liggéey la amul leneen. yàlla boole la ak macha allah borom kër boo xam ne mu nekk Baye Fall àdduna yëpp teg seen bët mu nekk ci gannaaw jabaram di ko jàppale ndax loolu yomb na ci góoru tey. waa bari na bariwul ndax góor ñu baax ñuy baax ñu ngi moom nag yàllaa dogal mu doon Baay Faal bëgg ma yërëm ma nit bu la bëggee da lay yërëm bu la yërëmee da lay jàppale si sa lépp ni may jàppale noonu laa koy jàppale ci liggéey ba ci biir kër gi noonu la ñuy jàppalante kon dañuy ñaanal yàlla rek yàlla la fa ñu cat. est que mën nañ xaar Daba ci yeneen ak yeneen ak mu génn dëkk bii wala bu dem ci yeneen ah bien sûr. kuy def kuy compter bu ne ci un lay commencé kon nan ñu ñaanal rek mën nañ ñoo gis feneen sax incha allah soobee yàlla. kontaan nag bu loolu weesoo ñu lay ñu lay laaj dëkk bi tey ni dëkk bi mel ak dëkk yëngu-yëngu dëkk bi lan moo sa xalaat. waaw dëkk bi dafa jaxasoo soo waxee ñii mer soo waxee ñee mer mais li may wax rek mooy xale yi nañ conseillé nañu revenir seen xel di delloo si seen xel nga xam ne àdduna yàggul te kuy xeex. yaakaar naa ne nag war ngaa mën a xeexal sa bopp ndax kenn yoru fi dépense kenn te lii ñuy def nii ñun kenn fekk si wuñu te lu ñu waay jox suñu bénéfice la te liggéey nañ démb kon xale yi nañ conscient xam bu baax la ñuy def xam fu ñuy teg seen tànk génn ci ay détails détails baaxul. li ñu topp ci tiktok bi boo ko tegee sa njaay mu jar nga am loo jox sa yaay wala sa papa dañ génn ci yenn amul sens du kontaan nañ nga nekk macha allah gaynde ñu ngi lay jaajëfal di la di di la jaajëfal di kontaan ci yow macha allah kontaan nañ merci beaucoup ma chérie nuyu nañ la noo gisee tey lii xam ne moom la dabaay organisé noo ko gisee lii moom ci kontaan rek parce que lii dafa jàppale vraiment ñu entrepreneur parce que dëkk bi léegi toll na fenn foo xam ne il faut foire donc nag foire yi muy promouvoir marchandise parce que pub la pour ñëpp gën a xam sa marque gën xam li ngay def gën a développer activité yi nit yi aussi dina loolu daal franchement da bàyyi lii defal ko kenn ñun la ko def ñu entrepreneur sénégalais yi surtout waaye yéen a ngi gis seen bopp ci li ngeen di jaay. waaw ñu ngi koy seen bopp bu am la nag lan ngeen di jaay fi ñu ngi jaay ay boode ay ensemble xale ay produits cosmétiques ay dàll ay bagages lépp loo xam ne daal di defar bien-être jigéen bien-être nit góor ñëpp xale mag ndaw surtout xale ngi koy def. mais kontaan nañ soxna si. ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum maa chéri nuyu nañ la. waaw maaleykum salaam chéri maa ngi lay fay bu baax a baax. noo gisee tey lii dafay organisé kii bu mag bi nga xam ne dafay boo ko organisé yéen ban ban gis-gis ngeen ci am. waaw mu nekk nag euh, lu rafet ndax li ma ko wax léegi dafay romb ma ne ko dafay ni sept trois mois da nga ko war a def ni festival at mi yëpp ñoo ko bëri at mi yëpp ñoo koy xaar ci yow tey dañu ñëw bokk waaye bu dee suñu instant bi nga xam ne dafay la. tey maa ngi ci stand bi nga xam ne mooy Aysatu Samiya Aysatu nag ñëpp ko xam taalibe maam borom daaru bi yaayi maam Thierno tey nag ñu ñëw nag ci li nga xam moom la dabaay def jëkk baax jëkk ñëw ak ko mu nekk événement Wally di Seck lañ koy wax ak ñëpp koy xaar am ñoo xam ne dinañ international ñëw fi nga xam ne ñoom mooy faar tey nag suñu koy sànni man li tax na ñoom mooy Rock Mass Kaba Soxna doomam di ñëw fii mooy Aïssatou Samuel tuddee ko li nga xam ne mooy faar bi ma ñëw dooleel si ko comme ñu koy saari moom nii rek la ñu mën ñun artiste moo tax ma ñëw dooleel si Aïssatou Samuel euh, jàppale si ko wax li ni ñaw rafet ndax mooy samay sponsor liggéey ku xool sama rob taxaw baax ñëw waaw waaw. macha allah loolu moo tax réew mi ni ma fi caaxaan man sama sponsor ni de moo tax tey ma ñëw fi waaye li ngeen def tubaab fakala dafa xool lu baax la àdduna rafet yi ngeen ñu di ko wane daf ci baax te ni réew mi yëngu na dabaay kenn mu sigi suñu nii man dabaay ko digal nii rek laa bëgg a xam ci ko digal foire bi laa bëgg a xam ndax nag tubaab fakala si jëkkër na sa ngay ñaanal la nga am am ak say bopp def lii soog ko daal bu baax rek ñu ko ndax lii yombul lii yombul vraiment yombul ndax lii jigéen woote ko yombul yow bàyyi la ñu jaay xale yi ñoo jaayut mais yéen a ngi jaay man maa ngi jaay xale yi di ma may xaalis ay sopee maa ngi jaay xale yi di ma tam maa ngi jaay xale yi tubaar fakkan la di ma tam macha allah barke la ji maa ngi jaay xale yi di ma tara waaye nag xale yi mën nañu bëgg mën nañu tam mën na kéwal si ay borom jeeg fee. kon man maa ngi dugg la bàyyi bu guddi gàddee ngeen daal di delluwaat. muy loolu loolu réew mi na daal ñu lay jaajëfal kontaan nañ ci yow maa gën a kontaan ci yéen ndax li ngeen def dafa am solo sama naw leen ne jaar li ngeen def dafa am solo ndax dugg ci lu mel ni loo xam ne nga dëgg ko moom mooy wala ko wane yéen a fi nga jërë jàmm kontaan jàmm ci seen boutique bii di American Shop bi ngeen doon xaar yegg si na ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër Xaadim boutique bi nag li ko tax a jóg mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo duggee lépp li nga xamante ni da nga ko soxla sa biir kër da ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque side by side ay Samsung ay LG attention frigo hauteur de haute gamme dimension ba bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour yu koy koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw sil gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay ak à penn benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom la ñu utiliser suñuy xeetu matériel leen moo mujjee xew ci àddina bi jóge fële ci Amérique am nañ ay chaise lant muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni dañu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb doxee am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yi nag yow xoolal bu la neexee da koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil lañ ay dàll yu rafet couleur yu baax baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fii coton cent pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xeet gu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon da ngay teg même pas vingt minutes mu jox la ndox bu sedd American shop waxoon naa la sànq ne la boo jékkoo nga baale ma ni eh kuy dóora man kuy saaga dañuy jaay ay vaisselle suñuy xeetu vaisselle yi ensemble am nañ ay filtre à eau am nañ ay thermos yu ànd ak robinet da ngay def sa ndox tijji mu daal xel yi ah yow miy dawal moto ñun waa American shop sa kaaraange ñu soxal moo leen ay casque original am sécurité jóge fële ci Amérique waa American Shop ni ma usa insistel ci suñu matelas yi waa lu tax matelas gonflable la da ngay gonfler ba mu jóg nga nelaw ba yandoor boo pare daal di koy tëj def sa saak boo amee xew man nga koo utiliser booy tukki mën nga koo yóbbaale kon sa màggal dina gën a neex boo ci àndee American Shop wax naa la numéro téléphone bi loo bëgg xam adresse bi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi jàkkaarloog seen karo xaadim ñoom jaaxal nañ ma ñoom bàyyi wuñu